internet Dakar Buzz nuyuwaat nañu leen bu baax a baax dina mbégte jàkkaarloo ak yéen ni ñu ko defee saa su ne émission seen cas tey dafa ñëw euh, set si euh, koo xam ne dafa am jafe-jafe ak Tahirou Sarr terrain bu dox seen diggante ñu koy toppee sax li nga xam ne moom mooy wàllum escroquerie comme ni ñu koy waxee rek ñu ñëw dégg ko suñu micro euh, bu ko defee rek mu daal di wax ñu mbir yi naka la demee papa ñu ngi lay nuyu ginnaaw nga présenté wu wax yow la kan. ñu ngi lay fay nuyu di nuyu waa yëpp. waa di leen nuyu yéen itam di rafetlu seen liggéey waaye nag di nuyu xalifa général Mouride ndax ñun ay Mouride lañ waaw ñu ngi koy nuyu di ko ñaanal mu gudd fan te wér di nuyu suñu sëriñ sëñ Abdou Karim Mbacke waaw di ko ñaanal mu gudd fan te wér waaw ndax xam nga dëkk boo fa nekkee yor carte d'identité dëkk ba dañ la war a yemale comme nit ñi mais soxna si man dama fay yàgg def naa vingt ans ci tribunal. vingt ans def naa ko ci tribunal bi munuma am gain de cause ci Tahirou saar ñëw sama kër sama yaay loué ko magasin bi mu sous loué magasin bi laaj xaalis dem yoonam di ñu jël di ñu ping pong comme bal ci biir tribunal bi man nag dama ne woon gine Guinée Bissau nekkuñu Mali Sénégal lañ nekk waaw vraiment vraiment vraiment war nañu mun a am li ñu neex ci suñu dëkk mais ay nit du ñu am doole jàpp nit ñi di leen noote di leen joggi loolu rafetul te Tahirou Sarr war na xool dawal boppam keroog bi ñuy dañ sama yaay mi ngi teg tànkam ci kaw bàmmeel tiim ñuy dañ sama yaay xelam war na daw ndax sa waaw la déggee li nga xam ne moom moo andi coow li rek euh, benn terrain la mhm. boo xam ne sa yaay moo ko moomoon di sukkee na laam euh, terrain bi nekk ci fi nga xam ne moom mooy Sandiniéry yi di 1451 euh, R mhm. nekk ci vingt hectares hectare lu yu toll noonu nekk loo xam ne kër la muy usage d'habitation kër gi bàyyi la titre foncier la wala. waaw kër gi kër gi kër gi titre foncier la ndax foofu la samay mamaat juddoo xam nga. nit fu nga fa say mamaat juddoo say maam juddoo fa ah dëgg-dëgg foofu am nga foo wàll surtout nag nga am fa ay titre foncier euh, man dama yaakaar ne dëgg-dëgg vraiment réew mi war nañu xoolaat néegu doole yi ndax itam doo yor sa xaalis rek jàpp nit ñi di leen joggi Tahirou Sarr maa ngi moom def nañ vingt ans ci tribunal bi mënuma fexe ba am gain de cause. vingt ans du benn fan du ñaari fan. donc lan moo tax mën a obtenir gain de cause boobaak léegi da nga amul kayit yu baaxul wala dafa am foo xam ne ah, da nga fa aw te waroo fa aw. fépp fu ma war a aw aw naa fa ba tribunal di ma atte di ma jox dëgg mais dëgg boobu laa dul gis ndax tribunal dem na ba atte ne ko fayal kii 49 millions 400. muy muy ordonnance d'expulsion bi nga xam ne maa ngi ko maa ngi ko amee. loolu aw ma ci gain de cause. ak yeneen ak yeneen yu xam ne nii dëgg-dëgg man bon damay dem ba ci yàgg ma ne non mais man xanaa dama jaarul fu ma war a jaar mais man fi ma jaar laa fi ma jaar fi ma war a jaar laa jaar ba am sama dëgg ci tribunal bi kon nag nañ ñu yemale ma ak Tahirou Sarr léegi yore naa fi benn euh, ordonnance d'expulsion boo xam ne yaa ko joxe mhm. euh, ci euh, ki nga xam ne moom mooy ay satu Ba Diallo nekk président tribunal instance hors classe bu Ndakaaru ci kayit gi di ko firndeel xam naa ñi koy seetaan dañu ko gis mu ñu wax ne su kee na moom moom kër googu nekk ci Sandiniéry papa moo ko moom woon ñu gis ne tamit dañu fa génnee ki nga xam ne moom mooy Tahirou Sarr 19 mars 2016 huissier de justice ba ko defoon mooy maître Abdoulaye Ba mhm. ci kaw loolu tamit ci këyit gi ma yor ba tey muy ordonnance d'expulsion bi trente-neuf euh, millions quatre cent yoo xam ne war na ko fay ci ay arriérés de location loolee nan la demee. waaw ndax euh, quarante-neuf millions quatre cent yooyu moom moo moo fa toog te fay ko ba pare lokk luye ko di laaj xaalis di lekk. ñu ngi ko doon fay location. ñu ngi ko doon fay location pharmacie bi da ko doon fay location cinq cent mille francs mu ñuy fay deux cent soixante mille c'est pas logique bon man nag gëm sama justice su dëkk moo taxoon ma topp ko vingt ans. ndax dama gëmoon ne man sama justice su dëkk dëgg-dëgg su ma ko toppee ci kii moom vraiment dina am gain de cause mais dama dem ba ci yàgg nag ma xam ne nag lii jar na jóg ndax façon nit yu mel nii war nañ jóg ci ñoom man El Hadj Pape Seydou Sam plateau laa juddoo li may wax ragaluma ko ragaluma ko benn yoon Tahirou Sarr dafa ma escroqué. léegi référé sur difficulté yi parce que ci kayit yi nga joxe tam am na ordonnance de référé sur difficulté. waaw ndax moom moo ne ndaw si léegi ñaanal référé. par difficulté. pour borom pharmacie bi ñu bëgg a génne. ndax borom pharmacie daf ko taxawal ne ko danga may danga may utal fu ma nekk par force danga may utal fu ma nekk par force mu ñaan référé par difficulté bugg koo ñaan quatre fois tribunal bañ na ko duñ la ko may duñ la ko may. kayit yi nga xam ne papa joxe nga ko bokk na ci euh, arrière du loyer yi ma la doon wax léegi mhm. lu toll ci deux cent soixante mille francs euh, loolee la war a fay par mois léegi toog na lu ci yàgg fayu fayuñu la ko mhm. euh, ci kayit gi ñu joxe yow lañ ci jox dëgg ndax mhm. kayit gi tribunal la jóge loolu tamit yaa ngi ci ba léegi wala maa ngi ci ba léegi ba léegi maa ngi ci di dox ba ñu atte ñu ne dañuy vider dossier bi mais biñ ne dañuy vider dossier bi vider ko atte ko ne ko avant ñuy vider dañ ko ne fay nañ da ngay fay borom 49 millions 400 yi ba pare tribunal daan na la vingt millions pour nga jox ko dédommagement kii. muy ndàmpaay gi ndàmpaay mu def ay manigansam fexe ba ñu ñuy wax ay 35 millions. mais Sénégal la ñu nekk léegi 35 millions yi anamu. gisuma 35 millions dégguma ko ñoom daal seeni wax léegi nag mu ne dañuy ñaanaat appel pour dem cour d'appel mais moom moom tribunal atte na ko ba pare. amoon ngeen avocat. am naa avocat. lu mu ci wax. waaw suma avocat dëgg-dëgg mi ngi ci mais am na yoo xam ne ni boo ko gisee day tey xel te xel mu tey mun na yóbbu ci nit lu ne te Tahirou Sarr man ragaluma ko man Pam Ndiaye xam na ma bu baax ragaluma ko mais dafa am yoo xam ne nii dafa rafetul sa diggante nit ak nit te maa ngi lancé appel ñëpp di ma lancé appel ministre de la justice. maître Malick Sall di ko lancé appel mu ubbi bëtam xool lii ndax Tahirou Sarr mënuñu ko bàyyi nii man mënu ma ko bàyyi mu nekk ci kër gi man man na ci naaj wi problème bii sama sœur dee na ci ak rakam. ci ci naka. ci naka toog ba amuñu lu ñu leen fayalee hôpital. Tahirou yor suñu xaalis ba suñu sama sœur bu ma bokkal benn ndey décédé doomam décédé mais Tahirou mooy kan Tahirou mooy kan loolu mënatul a nekk Tahirou lim ñu yoreel. billaahi wallaahi taalaahi barki sëñ Fallu dana ma fay. balaa ñuy sori dafa am tam beneen kayit bu ñu bind ma assignation en référé pour expulsion boobu ci kayit gi wax nañu ne am na protocole d'accord boo xam ñu ngi ko def 20 mars 2020 mm. euh, su kenn laam. daal di conclure ak Tahirou mamadu Sarr benn accord boo xam ne Tahirou Sarr dafa waroon euh, financer li nga xam ne moom mooy construction kër googu googule euh, def ci def ko location immeuble à usage d'habitation mooy na la somme de 260 000 mooy yi ma wax ne moom lay fay euh, weer wu ne mhm. protocole d'accord boobu tamit dañ ci gis ne il est convenu nu ñu ko waxee dans le bail inscrit dans le protocole d'accord protocole d'accord bi ba ñu koy def ndax fekkee nga ko protocole d'accord bi ba mu koy def fekk mu fi dafa fekk moo voyager mais sama rakk nga fa sama rakk mu ngi ci biir ak yeneen i témoin moom dafa ne woon day defar waaw bi mu defaree ba dem bay ëppal booy ne ko no arrêtel ëppal ci naka. maanaam di bëgg tabax jëm ci kaw te diggaale wuloo ko maire bi booy ne ko arrêtel tabax bi eh bi ñu arrêté tabax bi Tahirou dafa toog ba ci yàgg bon vraiment. sama yaay yore lu ko dara moom moo toog ba xam ne li mu waxoon nag maire bi bind ko defu ko ndax deux cent soixante millions yow xanaa benn xanaa immeuble sax boo koy boo koy tiire xanaa di nga ko tiire normalement xanaa yow ci année yi nga ko war a tiire mais di tiire di dem deux mille ba deux mille ba deux mille vingt ba nga baal ma est-ce que tamit euh, ci euh, saytu xool nga ba xam am maire bi amul woon euh, loo xam ne lebal na ko ko sans pour autant yéen doomam ngeen yëg ko amul amul waaw loolu amul ndax xam nañ sanu yaay jigéen ju baax la ju nangoo liggéey waaw jigéen ju baax ju nangoo liggéey du yoreel kenn bor waaw du yoreel kenn bor Dakar ñëpp ko xam ajaratu farlam ñëpp xam nañ ko waaw du yoreel kenn bor sincèrement yàlla ko yàlla xare àjjana ndax lii lépp moom moo tax waaw mais bëgguñu ñu ñaawoo moom te àdduna jarul ñaawoo te Tahirou Sarr fayul naar bi xoromam bi muy ñëw sunu kër yorul ñaar dërëm benn dërëm yoru ko dem ba teraanga gi dab ko foofu mais nag ñun ñun ñun ñun fi ñu dëkk ak domaine benn la ñun xam nañ ñu ay xale. lu yaakaar ne yëf yi moo ci laxasu parce que bu fekkee ne yow citoyen nga moom citoyen la yaakaar naa ne amul farfarloo amul leneen est-ce que amul leneen lu laxasu ci biir. am na lu laxasu ci biir. comme lan. comme lan man li ma jàpp am na ñuy jàppale taayiru ci dëkk bi. fan lañ ko teg. ci seen dool taayiru moo ko teg ci poosam man du tudd kenn ah. mais Tahirou moo ko teg ci poosam ci poosam mooy dooleem moom lay xeex doomu aadama yi di xeex ak yi di jël seen alal te loolu warul am ci dëkk bi Macky Sall warul seetaan façon nit yi daw ci dëkk bi dañ koy tilimal bu bëggee am jàmm na génn ci loxo ci loxo ci alalu lébu yi ci loxoom nag ci génn ci alalu lébu yi am na façon nit yu xam ne kenn du laal seen alal maa ngi lancé appel ñëpp nag waaw te vraiment dëgg-dëgg euh, dëgg-dëgg ministre de la justice na xoolaat na xoolaat bu baax ndax lii teguñu ko ci yoon yow gis nga kayit yi yëpp lu ñu falsifié amu fi lu ñu falsifié amu ci ñu ngi ñaanal ñëpp nag waaw di vraiment di kontaan ci émission bi bu baax a baax a baax a baax ndax dama leen di déglu di leen seetaan waaw kon bu ñu amee lu ñu naxari ci yéen la ñuy jëm ci mais daal bëgg naa daal Tahirou Sarr kilifa yi nekk ci dëkk bi ak autorité yi nañu dox sama diggante ak moom mu fay ma lim ma yoreel mais trent 35 millions moom du ma ko nangu du ma ko nangu ba suuf si jeex ndax moom atte nañ ko ba ne ko fayal am na fu xëy dañ ko dañ ko dañ ko dañ ko dañ ko ne kon condamné nañ la yow waroo taxawal sax ci kanamu procureur di wax mi ngi nii mi ngi fii ci kayit yi waaw kon nag man lan man mais man man Sénégal jaaxal na ma léegi bu fekkee ne euh, comme ni nga ko waxee dellusiwaat na fay la euh, li nga xam ne moom la këyit gi tënkoon jàmm dina dellusiwaat. sequma ak moom dara ay jirim la jàpp di lekk seen alal vingt ans di leen jaarale ci tribunal bi di def lu ko neex ñun Sénégal la ñu dëkk ragaluñ ko mais dafa am yoo xam ne ni dafa rafetul euh, xam nañ fu mu sukkandiku ci poosam la sukkandiku mais nag dëkk bi am na dëgg am na loi. ku ne amul loi da ngay nax sa bopp am na dëgg mais nit ñi ñoo jubul waaw man nag gis naa ne daal dëgg-dëgg daal euh, autorités yi war nañ ñu dimbali quoi ndax ñun ay néew gi doole lañ doon ay jirim suñu bàyyi dee suñu yaay dee bàyyi ñoo ko suñu alal ah Tahirou Sarr bëgg ko lekk ci nii di ñu sonal ci tribunal bi yéegal wàccal te atte nañ ko ba pare gis nga lépp yow yaa ngi nii taxaw këyit yaa ngi nii waaw vraiment nag a ah, man day man man jaaxle naa ci senegal waaw jaaxle naa ci Sénégal lool lool te waru fee am nag waaw loolu moom dëgg dëgg dëgg dëgg lu lu rafet rafet lu wuma ko waaw ndax itam mën naa nag moo demee bay bëgg fajal sama bopp loolu rafetul cim réew te ragaluma ko nag ragaluma ko benn yoon waaw kon nag na kilifa yu jóg wax ak moom kuy dem bay maye ay un milliard di maye ay deux cent quatre million millions waaye nga yoreel ay jirims soixante-neuf million di leen xaaj xaajee di leen yóbbu ay bëgg waaye moom kon yo milliards yi ñu koy waxal kon moom du dëgg ci moom nit nit da ngay am loo jomb ñi mu joteel moo leen ëpp doole waaye gënuñu gënuñu ñoo ko ñoo ko gën juddu ndax ñun duñu xëccoog moom sunu alal la ñu fekk di xëccoog ñun sama yaay juru ko Tahirou Sarr nag génnee alalam te jox ñu li ñu moom loolu loolu loolu rek la am lu ma doon wax seexu maam moom dara waaw jërëjëf ñu ngi kontaan bu baax alors mu nekkoon émission seen Cas mu ci doon eh, joxeñ baaraamu tuuma ki nga xam ne moom mooy eh, Tahirou saar eh, ci rek loo xam ne wàllum escroquerie la tëjuñ suñu buntu nag ni ñu koy defee saa su ne dina ko seetaan wala ay mbokkam koo xam ne mun na ci andi ay leeral bu ko seetaanee rek mun na jox ko ak dakaar Buzz bu ko defee moom it ñu daal di jël li nga xam ne mooy kàddoom sant nañ leen bu baax gërëm leen ba beneen yoon ak beneen invité.